mere ca pouvoir ba dem ci opposition du am coow wala coow la dañ koy rafetal waa opposition dañ koy gàttandu rafetal nit jóge ci opposition dem ci pouvoir pour liggéey réewam ñu ne ñu ñaawal di génne ay yum fi daan wax ak yooyu yëpp mais fii ku fi nekk am na loo daan wax ku ci ne même sunu soxna yi ñu doon séyal lan daan wax ak ñoom ba leen ba ñuy bëgganteeg ñoom ak li ñuy waxanteek ñoom tey du benn tout le temps nit euh, li ñuy wax ni yàlla mooy dogal destin kenn mënu koo ko échapper Idrissa Seck li mu wax le président Idrissa Seck d'ailleurs li mu wax lu yenu maanaa la ci opposition la nekkoon doon wut di défendre ay idéem mais su demee ba toog euh, jamono soppeeku le président Macky Sall mi nga xam ni réew mi rek la bëgg réew mi ko tax a jóg am ci moom soxla woo ko ni ko ñëwal jàppale après le dialogue national parce que idi ca euh, li mu def lépp après dialogue national la ko def dégg ko conclusion yeeg yooyu yëpp président Macky Sall woo ko su bañoon sax wala mu bàyyee ñëw ni day kon opposition loolu mooy bëggul Sénégal boppam rek la bëgg parce que damay xaar ba falu pour mën a liggéey Sénégal wala ma defar Sénégal loolu mooy bëggoo Sénégal sa bopp nga Idrissa Seck li mu def grandeur dëgg la grandeur mënu koo weesu il faut le saluer il faut le respecter parce que ces petits politiciens là nekk fii bii di politique politique gu nu Idi li mu def ci réew mi defuñu ko fii bañ na ba bañ jotee yàgg naa bañ tey réewum soxla na ko ak ko li xew ci réew mi yëpp ay mbas mi lu ne xew fi ñëpp war a fàtte seen démb fàtte lépp pour ñëw taxaw tey nekk benn pour liggéey réew mi ñu koy ci. génneel di wax dañuy waar ak waar lan mooy waar maa am maa waxoon lii parce que dama doon défendre sama position. mais est-ce que rafetul mhm. mais loolu loolu kenn am ko sa waxu démb méngoo ak sa waxu tey ci lan du ci politique. ci politique daal du ci politique ci defar sa réew. parce que démb mën nga amoon mën nga am beneen xalaat mën nga am beneen xalaat boo xam ni xëy na du xalaat ba gënoon. nga dem ba jamono soppeeku nga am beneen xalaat boo xam ne xëy na ci xalaat bii moom baax ci réew mi nga teggee nga teg xalaat bu njëkk ba fële ñëw ci xalaat bu mujj bi kooku nag mais il faut être grand nag pour le faire n'importe qui mënu ko def te naafeq yi nag ñoo ëpp ci réew mi ces soi-disant politiciens ces apprentis euh, politiciens là ku ci ne dafa ne tey euh, soo euh, yëkkul lu bon Macky Sall soo contrôle soo waxul kenn du la xam ñoom rek fi nekk di wax. mais xam nga wax nga koy respecté dafa am lu bëri lu mu lu mu méngool ak suñu suñu diine diine euh, jàngale na defe naa nit di balaa ngaa wax nga xam li ngay wax xam li tax nga wax ko. nga am lu mu la toll. waaw mais loolu diine wax na ko mais Idrissa Seck li mu wax yépp ci diine la ko teg. déggoo encore ma ne la politique. waaw waxeet non non non waxeet am na foo xam ne déggoo ñun la déggoo ñun la léeg-léeg fekk defar defar defar ñu ñu euh, jubale ay nit sax fen dagan na ci. waaw ci jubóole ay nit xanaa loolu gën a garaw mais mais ay wax waxeet amu fi ca diine suñ koy wax ñoom ñoo bëgg a jël politique bi ba ko su leen arrangé ñu bëgg a génne diine teg. parce que tey li Idrissa Seck def daf leen a bett ñoom ñëpp daf leen a jaxase dafa jaxase opposition bi daanaka opposition bi tasaaroo noonu xamatul sax fu nu jëm ñoom ñëpp a jëfur xam nga dëmm su lekkee nit fu ne lay wax maa lekk diw maa lekk diw ñoom ñëpp dañoo jëfur fi ñu toll Idi daf leen a jaxase te Macky Sall le président Macky Sall won leen aussi. mais est-ce que xalaat na boppam Euh, nga nekk opposant numéro un ci ab réew nga génn ci élection nekk numéro deux euh, nga war a am en tout cas war a gën a defarwaat pour naan au moins léegi présidentielle bi di ñëw su ma gënee góorgóorlu mën naa remplace kii bi rek nga sacrifier loolu sacrifier mouvement yi la doon topp sacrifier yenn leaders yi ndaw yi mais sacrifier wul dara dem topp sacrifier wul sa intérêt dara parce que moom non intérêt réew mi la topp toppul intérêt boppam ah. intérêt réew mi non intérêt réew mi la topp parce que mais am réew it danoo soxla jàppoo pour liggéey réew mi moom euh, intérêt réew mi la topp te it mais loolu munu koo tey su yàlla tuddee ni day nekk président de la république kenn mënu ko tey nekk président de la république président de la république kooku domaine yàlla la hmm. nit ñi doon wote nag mais domaine u yàlla la président Macky Sall keroog ba muy jóge ci ab jógewu fa sax ba koy xatalee gundu xataal ko ba mu jóge fa mais ñu bëri dafa nan ni président Macky Sall du nekk président de la République mais dafa dafa jël yoonu boppam dem. ah mais Idi est-ce que waruloon non Idi Idi jël na non non non non non non taxal ma mais xaaral ma eggale foofu jëm ci foofu président Macky Sall dafa jël yoonu boppam. yàlla jàppale ko. mu jël réew mi Idrissa non Idi ngi woon ci yoonu boppam yàgg na ci yoonu boppam. tey nag non non non dara soreetul te lii mu def lii Idrissa Seck def. ko complot euh, yàgg yàgg non non non non non yàgg nañoo réeroo ci politique mais mosuñoo réeroo ci àddina. ñoom ñaar. man ma ay ay mag ay mag ak rakk lanu politiciens yi nga fi gis yëpp opposition yi nga fi gis yëpp euh, su guddee ñu dem di waxtaan ak Macky Sall wala di waxtaan ak keneen. mais est-ce que ñun kon mën nañoo war nañoo am confiance. ah mais mais yéen dañ leen di nax rek ñaari jeux non non dañ leen di nax rek. di xeex gis nga gars yi nekk ñu boole ñuy mais mais opposition bi a fa des. lu as as compa fa des. Ousmane Sonko. waaw mais mais euh, Ousmane Sonko mënuloo dem fenn foofu rek la mën a toog. mun la dem feneen tey ñii ànd ak moom ak ñeneen yeneen politiciens yooyu tey sànni xeer moo leen gën a arrangé sànni xeer Idi mais Idi du seen morom ci politique te Macky le président Macky Sall won na leen ni ñoom ñëpp du seen morom ci politique le président Macky Sall def na fi loo xam ni. Oh, waaw waaw parce que dem non def na fi loo xam ni. Ah. ca Senghor Abdou ab Abdoulaye Wade. Euh, ba ci président Macky Sall mu woon leen ni ni muy politique bokkul sax ak ñoom ñoom doon politique Senghor nekk na fi. aay na waaw dama koy tas loolu. Senghor nekk na fi bâtir un état. Mm-hmm. mu yomboon lool parce que booba rajo amu fi télévision amu fi démocratie amu fi kenn kenn ñi mu def la warul def. Mm-hmm. ba yàlla jëlee ko fi mu jox président Diouf président Diouf ñëw moom it consolider loolu mais mësula mën

mu taxaw mu jël ñetti poste yi gën a rëy ñetti institution yi séddale ko ay alliés muy président assemblée nationale mu jox ko Moustapha Niasse au conseil mu jox ko Ousmane Tanor léegi Aminata Mbengue Komé mu jël tey jii ci ci li indi coow li quatrième institution bi mu jox ko Idrissa Seck xam nga loolu il faut être grand il faut être généreux de cœur man a politique. pour nangu loolu. waaw ah, mais est du question mais mais parce que gis nañ ne institution yi nga xam ne euh, yooyu la jox opposition bi c'est des institutions. du paacoo Kande Kande Kande du Kande Kande du paacoo dafa xam ni moom rek moomul réew mi. Euh, yàlla moo ko fi teg ci mënoon na fee teg ñooñu ñëpp mu joxe institution mënoon na leen teg ci bopp réew mi moom pour bëgg àndandoo jàppoo pour ñu liggéey réew mi pour lu baax ci réew mi moo tax mu def loolu. su doon su doon pàccoo rek su da koy pàccoo ak waa parti rek. bu mu yóbbu ko mooy 16 euh, ans. Euh, conseil économique social et environnemental. Mm. lan la mën a andil réew mi en terme. waaw suñu demee euh, changement mais mais bu ñu yàggam non non non Kande. bu ñu kande kande bu ñu yàkkamti. mais non non d'accord non bu nu yàkkamti Idrissa Seck bërki démb leen ko fal. danga nga ni lu mu mën a indi. non non non non doo doo jinne doo doo melax doo luxuskat doo seetkat. Idrissa <laughs> Seck li mu mën a indi yàllaa ko xam te li mu mën a indi Idrissa Seck am na capacité. non non dama ni dama ni moo tax yow laay tontu non yow laay tontu moo tax ma tudd yàlla. yow laay tontu yow yow yaa tax ma tudd yàlla. mais doon tuuma Idrissa am na capacité boo xam ni. nan doxal. mais mais hmm. ko euh, loolu nag loolu nag du sa domaine. loolu du sa domaine loolu du sa domaine loolu du sa domaine du sama domaine. loolu domaine nu seul le président Macky moom la fal. waaw mais nit la mais moom la fal ñun ñëpp ay nit la. mais moom la ñu jox destiné réew mi. mooy seet ni mu koy doxalee mu teg ko. mais bu nekkul lu baax bi mu mais mais mais yow yaa ni nekkul ci lu baax. waroon nga ñëw président waroon nga nii nii nga ko defee li ngay wax quand tu deviens dangereux. ah waaw tu deviens dangereux parce que li ngay wax. <laughs> yow rek la engagé. Macky Sall le président Macky Sall li muy def ku baax ku ne ku dul naafeq ku ne war ngaa xam ne li muy def lu baax la. nit ñi nag ñoo yàkkamti. ak ñoom nekk di sànni xeer ak bëgg yàq te président Macky Sall nag fi ñu toll. bu boo nit ñi nag seen xel dal. Idrissa Seck yaakaare waaw man dañu ko yaakaaree rek. Mm-hmm. parce que 2000 defe naa 6 su ma juumul. Mm-hmm. la gëj a dugg ci mbirum gouvernement. Mm-hmm. alors 2006 ba 2000 bu ñëwee au pouvoir 6 na lii a ngande ci mm-hmm. moo ko piloté moo ko fekkee. waaw ah mais moom moom xamante nañu yàgg nañu yàgg nañoo liggéey. xamante nañu fi mu ne da ngeen bàyyi Idrissa Seck. te ñan ko ñaanal yàlla. ñaanal yàlla Sénégal. Mm-hmm. ndax. Euh, bët bu setagul ak di gén nett li géntu jaamur loolu baaxul ñun mm-hmm. Mm-hmm. am na xam-xam waaw ko dugal est xam fa amal njëriñ. xam nga soxlawul non soxlawul xam nga lan moom lan soxlawul lu amal njariñ njëriñ Idrissa Seck lu amal njariñ Sénégal la ñu soxla soxlawuñu lu amal njëriñ Idrissa Seck wala Gaston wala Massamba wala ma dem lu ga lu amal njëriñ Sénégal moo nu tax a jóg moo tax a jóg sa Seck ak président Macky Sall donc nañ leen may vraiment ca bàyyi yàqante bi. parce que daal mën nañoo mhm. mais Sénégal bis bu ne ñu taxaw fii ci télévision yi nekk ci plateau yi seen plateau yi taxaw bëgg taal réew ci gis nga ñiy taal ñi bëgg a taal réew mi ak ñiy wax ñëpp. Mhm. kenn amu ci kër goo taal. ñoom ñëpp kenn amu ci bien yu nu taal. looloo tax ñuy sawar ci nan taal réew mi. maanaam ñu tekkiwul dara daal. waaw soo yaa ko wax de. mais daal ñu amuñu lu ñu taal ku amul loo taal nag su neexee nga taal réew mi ndax amoo loo yàqule moo tax ñi nga xam ni vraiment dañ fi am njaboot am fi seen i bien am bëgg réew mi bu nu déglu ñooñu buñ leen topp. d'accord ku bëgg a réew ku bëgg a liggéey réew mi na ñëw liggéey réew mi. d'accord Idrissa Seck ñëw na waaye moom kese moo ñëw ah. mel ni ñu ko doon accompagner en 2019. ci mais encore encore encore ñu daanaka ñu ëpp ñu baax ñëpp ñoo noonu. parce que am na ñoo xam ni mësuñu ànd ak Idrissa Seck sax tey am na nag moom. ñu baax waaw ñu baax ñi. nan ngay woowee ñu baax ñi. ñu baax ñi ñu baax ñi ñëw nañu ñu baax ñi parce que tey mais et puis man vraiment de xam nga xam nga toujours nit ñu ñëw fii di def ay chantage ci plateau télévision yu kenn xamul ay militant ah laa la wax. daan naa ko wax at Sénégal gi politique gu Sénégal kenn amu fi kenn nag laa la wax amu fi base base xam nga ko am. Hmm. njiitu réew. gis nga Senghor bi mu fi nekkee. d'ailleurs booba presque parti unique la après Ablaye Wade ñëw moom rek amoon base. moo gañoon maire yëpp ku ku génn gañe maire yëpp ku génn ku génn PS ñàkk sa maire yi. Ablaye Wade ñëw ah, Abdou Diouf ñëw ñooñu ñëpp topp ko mu te kon ne cette base là Ablaye Wade ñëw maire Abdou Diouf yëpp ñu wàcce leen ay waa kër Ablaye Wade ñoo xam ne kenn xamuleen leen woon ñoo ko jël bi Ablaye Wade demee le président Macky Sall ñëw ñu maire yëpp APR lañu bokk les les trois quarts donc taxaw di wax. kenn topp ko fii kenn du fi topp kenn Idrissa euh, le président Idrissa Seck tey ñaan ak Macky Sall topp nañ ko ñaan ak président Macky Sall ca bëgg président Macky Sall bëgg réew mi yëpp topp nañ te Idrissa Seck d'accord nañ ci am nañu moom pour lu jëmale réew mi kanam. d'accord Idrissa Seck ñëw indaale coow tamit. Euh, te it coow coow coow.